Euh, jafe-jafe yi nga xam ne moom la waa Touba di di dund en tant que député Cheikh Thioro Mbacké ñu jàppoon ne bu génnee am benn occasion ci benn micro ci lay njëkkee muy lan ndoxu xorom bi nga xamante ni si waa Touba ñi ngi koy naan pendant des années bëgg ci ay solution mbaa xam nga ne Touba dañuy dañuy jënd butéelu vingt litres bi 125. vingt litres bi pour ñu jënd ko cent vingt cinq saretu mbaam bi koy indi wala oto bi il faut mu daw lu mu gàtt gàtt gàtt trente cinq kilomètres quarante kilomètres mu doo ko indi ci biir nit ñi su ñëwee ndox bi day tàng su ñëwee ndox bi day yàgg ci naaj bi su ñëwee ndox bi day la day yàgg ci bitéelu encassable bi ñu jënd ko cent cinq di ko naan tuddee ko ndox bu neex mooy ndox yi mhm. ñu ne déetawaay ñu ne màggal Touba li ci des matul sax deux fi ëpp ci mbedd yi am ndox luy toll ci deux cent quarante njaboot génn seeni kër nga war a mat gu toll ni euh, taxaw ci télé yi yuuxu reeteet wut ndimbal wut ay pexe wut solution mais loolu lépp fekku la ci digg bi Touba nekkee ci ay dëgg-dëgg jafe-jafe moom Cheikh Thioro mi ngi woon États-Unis di feetu mi ngi woon États-Unis di fataw mu ngi woon États-Unis di wane boppam mi ngi woon États-Unis di wane ni léegi ñoom yor pouvoir léegi kooku nag tey bu ñu laalee intrem tax mu génn dóor ci taabal ji na ñoom dañ ko waroon woo waxtaan te li mu wax mooy li gën a mooy li gën a doy waar mu ne ñoom député yi Pastef man dama jàppoon ni député député sénégalais yi la war a doon dama jàppoon ni député bu mu ci man di doon député réew mi nga war a doon sénégalais boo xam ni sénégalais yi ñoo la voteel sénégalais yi ñoo yeewu taxaw jël seen ay carte dem ci urne bi voté pour tànn leen ngeen nekk député ci assemblée nationale man dama jàpp ne bu ngeen fa demee député population bi ngeen war a doon député peuple bi ngeen war a doon député askan wi ngeen war a doon mais dégg nga ci biir waxam mu ne ñun député yi Pastef yi dañ ñoo waroon woo waxtaan. loolu nag fi mu lay fi mu lay yóbbu rek Fatou mooy réew mi ndekete politiciens yi kuñ ci laal sa intérêt di nga jóg wax ndax nag dañoo laal intérêt koo xamante ni si dund nga ay at koo xamante ni si dund at yu bari. Euh, salaire u deux cent mille mosoo ko téye nga dem ba daanaka bu weer dee sa salaire mun na mun na jege lu gàtt gàtt trois millions kooku buñ laalee sa intérêt di nga jóg taxaw wax ndax da jàpp ne waxtu wuñ tasee assemblée bi am na ñeneen ñu fa mën a dugal wala nga jàpp ne waxtu wuñ tasee assemblée bi euh, buñ la tànnee tim tey doo jàll ndax nag ñoom ñoo yey tiit xam nga lu tax ñu yey tiit mooy que ne assemblée nationale euh, bu ñu ko tasee il faut ñu demaat élection moins de six mois bu ñu demee élection tey est-ce que ñoom rafet nañ jor ci ne mën nañu am majorité assemblée pour ñeenti mbir wala juróom mooy xale yi nga xamante ni si ñoom ñoom lañ portelé woon projet bi xale yi dem nañ ba yëg ni projet amul xale yi xamante ni si ñoom lañ portelé woon projet bi xale dem nañ ba tey ñoom dañuy siwa mucc siwa mucc gi mooy lan amatuñ sax lu ñu liggéeyee ndax yu ci bari yu ñu yaakaaroon dañ leen koo xañ ñenn ñi ñu dàq leen seen ay bërëbu liggéeyukaay xale yi nga xamante ne si ñoo porté woon projet bi nga xam ne ñoo leen doon sonnal guddi ak bëccëg suba ngoon dem na ba seen yaay yi leen doon dimbali sax ci weccet bu ñu bu ñu xëyee def formation wala bu ñuy jàngi wala ñi nga xamante ne si dañuy jàngi métier ñu di leen jox paas jox leen dékki seen yaay yooyu mënatuñ ko am ndax ñi ngi ko yaakaaroon ci marché bi te fi mu ni moom dëkk bi dëgër na dëgër goo xamante ni si képp ku doon am 100 francs 25 francs tën na la comme ni ko président Bougane waxee barki démb beneen ñeenteel bi nga xam nag mooy doon mooy doon li leen gën a sonal mooy euh, gëm sa bopp gi taxaw ci seen wet junguru leen sikkimu leen nga xam ne tey li ñuy wax dégg nañ ko li li askan wi euh, bëgg a xam ñi ngi leen koy xamal te gëm sa bopp benn combat rek la am muy fexe ba assemblée nationale ñoom ñu doon fa majoritaire léegi nag loolu bu leen tiitalee ba tax ku mel ne Cheikh Thioro génn di wax ni ñun député Pastef fii dañoo waroon a woo waxtaan ak ñun laata ñuy wax waxu tas assemblée man gëm naa ni waxu tas assemblée bi dafa dafa doon beneen débat boo xam ne ñoom dañ ko indi ci xelu askan wi. Mhm. pour bëgg nit ñëpp nekk di ci débat mais nekkul sax lu leen yitteel. Fatou mhm. tas assemblée yitteelu leen xam nga lu tax leen mooy man dama gëm ni euh, ñoom. dafa bari problème yoo xam ne moo tegaloo ci seen bopp. bari loo xamante ne si moom la ñu bëgg nit ñi fàtte ko. newoon nañ nit ñi dañuy wàññi dund bi ban wax leen ni leen dugal nañ ci 53 milliards la nga doon jënd ngay jëndee man li ma doon jëndee laay jëndee. café Touba nga xamante ne si. Ah, saa mburu bi kat wàññeeku na. poids mburu bi moo wàññeeku pois bi waaye njëg gi ndax boo doon boo doon boo doon ndekkee liibar léegi kilo ngay ndekkee mburu bi poids bi mi ngi tolloon ci 210 grammes ñu yóbbu ko ba 190 grammes lërsër bi mi ngi tolloon 75 centimètres ñu yóbbu ko ba 60 centimètres kon poids bi ak lëngër bi lañ wàññi waaye wàññi wuñ mburu dañ ko mm, ay na yiwén na meloon sax moo ñu gënaloon fa lañ ko waroon bàyyi ñu teg ci suñ juróom yi continuer di ko di ko di ko jënd euh, tey 53 euh, milliards yi ñu dugal nañ ko ci dund bi amul fu mu feeñ ci borom kër yi rawatina góorgóorlu bi ba xale yi ñëwoon bu ñu ñëwee moins de 3 mois kenn ku ne di nga am 150 000 kenn ku ci nekk ci yéen di am liggéey xale yi ñu ngi dee ci géej gi xale yi amatuñ liggéey xale yi mënuñu sax dem ci marché bi pour teg seen table pour yaxantu mënuñu sax dawal jakarta tey bari ñoo xamante ni si fekk nañ leen seen ay bërëbu liggéeyukaay seen xel daloon ñu jàpp ni mën nañ ci yaxantu tuuti mm-hmm. ñu fekk leen fa bale leen demal port mm-hmm. demal Lonase demal RTS demal feneen ak feneen fu bari foo foo xam ne ba ci boo duggee ci santé bi wàññi nañ ci lu toll ci cent personnes léegi nag yooyu yëpp bu tegaloo seen bopp mhm. mu dem ba doon pression boo xam ne xamuñu nu ñu koy expliquer xale yi ba pare Ousmane Sonko am beneen pression bu tegu ci boppam muy lan war na def déclaration politique générale waaye war na it roy euh, patron muy jomaay wax alalam naka la toll Jomaay indi na alalam mu toll ci genn wàllu milliard ci ku liggéey quinze quinze ans ci impôt au ku ne xam ne salaire bi mu fa amoon. yor ay soxna yor njaboot doon ci dund. xayma alalam mu toll ci moyen de un milliard. Mhm. Ousmane Sonko ñu di ko xaar moom it mu mu war a mën a ñëw xayma alalam pour ñu xam fu mu toll. war a def déclaration politique générale léegi yooyu yëpp bu dajaloo seen bopp il faut ñu lëndëmal xelu askan wi euh, teg benn miir teg seema seema politique. seema boobu lañ tax ñu naan la dañuy tas assemblée dañuy def nii mais xoolal ñoru leen dañu bëgg a fàttaloo sénégalais yi jafe-jafe bu bari bi nga xam ne digg nañ leen ko jafe-jafe bi sénégalais biy dund góor góorlu bi jàppoon ne bu ñëwee mu nekk ci jàmm góorgóorlu bi tey la gën a sonn liggéeykat bi tey la gën a ñàkk sécurité tey la gën a jaaxle liggéeykat bi tey la gën a jaaxle tey la gën a gis ni moom kat taxawaay bi mu amoon démb ak barki démb nguur doon ko ci dimbalee ko su néew amatu ko euh, social baa xam nga ni amatul ci réew mi euh, Fatou foofu laay daanelee bu njëkkoon da nga gis bu su événement amee état génnee def social bu mbënn masaan ñëw état génnee def social mairie ci commune yi def social sous-préfet yi sax daanañ ci taxaw pour mën a fexe ba yeggale euh, koom googu ñuy jox néew ji doole yi ci ñi ko gën a soxla ñetti weer yi jàpp ñeenti weer amatul ndimbal ñi doon dimbalante dañoo téye seen loxo ndax état bi moo digle ni xaalis bi ñu doon dimbalante yàq la gaspillage la looloo tax ñu ci ëpp ëpp tey seen loxo moo tax néew ji doole yi ak góorgóorlu bi di gën a sonn di gën a maar moo tax loolu rek nañ bëgg a sëlëmi nit ñi moo tax ñuy indi ay tasum ensemble. Eh, très bien am na solo Ibrahima est-ce que ci wàllu woowu amul li nga xamante ne moom moo di euh, ay calcul ci mbir mi gis nañ euh, taxawaay bi nga xamante ne ne euh, intercoalition yi amoon na ko ci élection yi ñu dëgmal tey ji également bu fekkee ne mën nañ dem ci élection ñu. di suivre assemblée nationale boobu est-ce que euh, ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci pouvoir bi euh, du ñu utiliser euh, li nga xamante ne moom ba di stratégie boobu pour mën a am majorité à l'assemblée nationale parce que gis nañ ko ci bii passé moo xawoon indil gàllankoor nguur gi fi nekkoon. waaw dinaa laal tuuti ci rebondira tuuti ci marchand ambulant yi rek lu ndaw rek pour dire que ñoom ba léegi dañoo jàpp seen mobilisation mais dama jàpp ne. beneen alternative am na puisque y' a six marches wala six rassemblement wala sept yoo xam ne état tere na ko suñ ko jàppaate aussi danañ leen ko tereel. Mhm. donc là il est temps que le gouvernement rencontre leen waxtaan ak ñoom trouver ay di permettre ñu toog xool naka la ñuy defaree ba dalalaat seen xel pour ñu bañ a rassembler wu. parce que je crois que le fait que ñuy ñàkk dajaloo le fait que ñuy ñàkk marche. mooy intérêt ak njëriñu gouvernement bi fi nekk donc il faut que le premier ministre trouve euh, des interlocuteurs à travers les ministres du tutelle waxtaan ak marchand ambulant yi ñu déglunte wut ay kaniva li ñuy laaj yomb na ñoom na état bi di waxtaan ak ñoom